Hallelujah.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 daarayni laaj ak tontu yoo xam ne yi seen mbokk al imaam Aboubacar Faye ndondal ko dungoy moo koy taxawee ci ndimbalal yàlla ak kattanam ak xéwalam ci bésëb bu nekk ci M Media Group nuuru daarayni aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala seydina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki M-Media Group Nuuru Daarayni ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli boobu sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen bal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa mu nungul ñu suñu jaam yàlla jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di leen ndokkeel ci weeru sell wi ñu nekk ak guddi gu màgg gi nga xam ne gi génne nañ ko muy guddik gàmmo gi di guddi gi yonente bi gane àdduna muy guddi gu am solo gu màgg gu rëy lépp luñ ci def ci jaamu yàlla rek yàlla na ko yàlla nangu te fulal ñu ko bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jéggal ci suñu rëcc rëcc guddi gi attana lépp kon ñoo ngi leen ci ziyaar di leen ci ndokkeel bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu teewe ko ay déwéni déwén te may ñu guddi gi fan ak fekk ak tal ak wér ak xiiwal ak kattan gu ñu mën a jubloo ci liggéeyal islam bi ak gën a mën a jaamu yàlla bu baax a baax bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy nii mbokk yépp nag di leen ndokkeel di leen ziyaarewaat góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel di leen eh, jottali néew boobu yii di leen ziar bu baax a baax xam naa tey ñuy jéem a ñëw ci liggéey bi rek ci liggéey bu sell bi ñu yàlla boole eh, jéem a tàbbi ci laaj yi nga xam ne yii moom la fi mbokk yi rotal rek eh, bu ko defee dañu tàmbali ci. laaj yi nga xam ne ni suñu mag ji muy sëriñ diir rotal na ko fi ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel benn bi muy lu aju ci wàllu euh, sëy muy ñi nga xam ne ñi dañoo war a mën a takkante ci ni ko lislaam tërale ak ñi nga xam ne ñi mënuñoo takkante maanaam dañoo araamante mu doon lu am solo loo xam ne lii lu ñu war a bàyyi xel la lu ñu war di seetantalal lu ñu war di tànn la lu ñu war di xalaat itam bala ñoo di deeti boole ñaari nit muy góor ak jigéen di leen boole ñuy sëy ndax euh, léeg-léeg loolu mu wax noonu di maanaam jëm ci wàllu sëy léeg-léeg ñu boole ñaar ñoo xam ne ñii jafe-jafe boobu da ciy am maanaam dinañ yaakaar ne ñu war a mën a sëy lañu fekk ñoom ñaar ñooñu waru ñëw sëy seen diggante dafa araam loolu nag su amee euh, bañ def ko la ca doon gën mooy suñ ko xamee ñu dindi ko waaye suñ ko xamut xam nga kon day daal di doon jafe-jafe boo xam ne bii dañuy woy rek di ko dund noonu te loolu gënut kon euh, loolu yonente bi wax nag muy jullit daal moom lépp loo xam ne lii maanaam da yéene def ci ay defin wala lu muy wax war naa gëstu ba xam la ko ca charia wax la ca lislaam wax su ko defee bu dog caa bu du ko mën a tàbbi dog mën a dox doxin wa nga xam ne yi maanaam moom la ko ci diineem sant waaye am nañ njuumte yu baree bare yoo xam ne yii ak ñàkk xam moo koy sabab ak it ñàkk gëstu ak ñàkk leerlu bala ngay dugg ci mbir ndax jullit mën daa war lépp loo xam ne lii da koy def moo xam la ca diineem àtte su ko xamul mu dem jéem koo leerlu ji jéem koo gëstu ji ndax lii mu wax nii gis nañ ci ab jafe bu rëy bu ci am boo xam ne bii am na ñu takkan dañoo xam ne ñi maanaam seen diggante wax dëgg buñ ko lijjantee dafay dañoo araamante takkante nañu ba yàlla def ci ak njaboot ba njaboot googu yàlla def ci geneen njaboot ñoom itam loolu di law di dem rek te loolu mu doonati loo xam ne lii booy seet daanaka lu jafe lijjanti jëndi li fi mu ne nii daanaka mën nañ ne mëneesatu ko lijjanti kon lii mu laaj ni lu am solo la ñu war a mën a jéem a xam ñu ñu war a takkanteel. kon suñu diine jii di lislaam te moom la yàlla tànnal maanaam mu doon li nga xam lii moom lañ ko ci war a jaamoo. mu indi téere bu leer naññ boo xam ne bii mooy alxuraanul karim nga xam ne lépp loo xam ne lii lu nu war a jëfandikoo la rek bu dee ay wax bu dee ay jëf la lépp alxuraan indi na ko alxuraan moom bàyyiwul dara su ko defee téere boobu yi tamit ak euh, sunna si nga xam ne si moom la Seydina Muhammad teg dañ cee war di dellu di ci jéem a gëstu suñu kéemtalaayal kàttan bu ko defee alxuraanul karim dañuy wax ci wàllu maanaam ñi nga xam ne ñi ñoom lañu ñu war a takk maanaam mu lim ci e, maanaam ñi nga xam ne ñi dañoo araamante muy góor ak jigéen nga xam ne du ñu mën a takkante alxuraan dañ koo wax mu leer naññ mu limal nu ko e, ba xam ne bu fekkan ni e, kuy dem di takki soxna wala ñu di ko ko takkal dinañ dellu foofu gëstu ko leerul ko dinañ mën a ràññee ndax kii ñu takk tey nii wala kii ñu bëgg a may nii ndax man nañ ko may kii ñu ko bëgg a may wala déet su ko defee benn jafe-jafe du ca am léegi bu ñu dem ci suuratu nisaa yi yàlla dafay wax ne xurrimat aleykum ummahaatukum wa banaatukum wa axawaatukum wa ammaatukum axi wa banaatul uxti wa ummahaatukum allati ardaanakum wa axawaatukum min arradaati wa ummahaatu nisaikum wa rabaa'ibukum allati fi hujurikum min nisaa'ikum allati daxaltum bihinna fa in lam takunu daxaltum bihinna fala junaha alaykum wa halaa'ilu abnaa'ikum alladina min aslaabikum wa an tajma'u bayna al uxtayni wal muxsanaatu min an nisaa su ko defee gis nga ñi nga xam ne ñi ñoom la yàlla li mu nekk ci biir alxuraanul karim nga xam ne boo demee ci sóoratu nisaa di nga ko fa fekk dafa nekk fukki jigéen ak ñeent yoo xam ne yii maanaam kenn mënu mënu leen mënuñu leen a takk maanaam muy ummahaatukum mooy yàlla dafay wax ne araamal nañ ci yéen seen yaay maanaam kenn mënta sëy ak yaayam wa banaatukum seen doomi jigéen yi nga xam ne moom leen yàlla may maanaam ngeen jur leen doomi jigéen yooyu da ngeen araamante mënu leen a takkante wa axawaatukum sa mag yu jigéen yi wala sa yu jigéen yi ñi nga bokkal ndey ak baay wala nga bokk ak ñoom bàyyi rek wala nga bokk ak ñoom yaay rek maanaam mënoo cee takk kenn su ko defee muy mbokku jigéen yooyu euh, moo xam da ngeen a bokk ndey ak baay wala ngeen bokk bàyyi rek wala ngeen bokk yaay rek léeg-léeg bu ci jafe-jafe di am ñaare ci wàllu googu lay amee waaye bu ko defee ñooñu moom mënoo cee takk kenn dañoo araam ci yow waaye lépp loo xam ne li jur nañ ko itam mu da ngay topp càllala googu maanaam mënatoo cee takk kenn waa am maatukum seen euh, bàjjan yi maanaam am maat mooy jigéen ñi nga xam ne ñu bokk ak sa baay euh, maanaam seeni rak wala seeni mag waa xaalaatukum ak seeni tànt mooy seen yaayu ndaw yi mooy jigéen ñi nga xam ne ñi dañoo bokk ak seeni yaay wa banaatul axi ak boo amee mag ju góor wala rakk ju góor ay doomam yu jigéen mënoo ci takk kenn wa banaatul uxti sa rakk ju jigéen wala sa eh, mag ju jigéen ay doomam mënoo caa takk kenn wa ummahaatukum allati ardaanakum bu fekkee ni yow sa yaay dala ki nga xam ne ki yaayam da ko jur waaye da ko jox keneen mu nampal ko kooke nga xam ne ki moo ko nampal dañoo aramante wa axawaatukum min ardaati bu fekkee ni itam ñaari liir dañoo maase maanaam euh, ñu bokk kenn koo xam ne kii moo leen nampal donte bokkuñu yaay itam kooku nga xam ne kii ñooñu nga xam ne ñi ñoo nampandoo ñoom ñaar mënuñoo takkandoo takkante bu dee liir bu góor la ak liir bu jigéen maanaam ñu juddu maase di nàmp euh, suñu su leen ka leen nàmpal maanaam wa axawaatukum min radaati yéen ñaar ñoo ñu nampandoo bu dee góor ak jigéen la ñaam ñoom ñaar dañoo araamante euh, mënuñoo takkante foofu it war nañ fee def ab euh, ab gëstu ak ab euh, taxaw seetlu muy ñi nga xam ne ñi dañoo nàmpaloo muy liir bu góor ak bu jigéen nga xam ne dañuy araamante fi mu ne euh, léeg-léeg da gis ñaar ñu jigéen bu ñu amandoo ay ñaari liir maanaam bokk fu ñu nekk ñuy góor ak jigéen mën naa am léeg kenn ki jël doomi ka ca des nàmpal ko te loolu mën nañ ko bàyyi bañ a bàyyi xel su ko xasee nàmpal rek maanaam ñoom ñaar dootuñu mën a sëy maanaam li may wax mooy comme liir bu góor la ak bu jigéen maanaam ñu bokk fu ñu nekk euh, mën na am kii yaayam génn nekku fi muy jooy yooyu keneen jeneen yaay ji maanaam yaay beneen liir bi daal di jël gone googu yaayam dem maanaam nampal ko su ko defee liir boobu mu nampal ñaari liir yooyu muy góor ak jigéen lañu ñoom ñaar ñu mën a takkante te loolu buñ ko bàyyit xel ne maanaam keekat mas naa nampal doomi ka ca des Euh, mën nañoo dem ba doon mag ñaari ñooñu maanaam ñu boole leen may leen te boobaa dañuy araamante loolu yi tamit lu jara bàyyi xel la wa rabaibukum ak it loolu ñuy wax doomi jiitle maanaam boo takkee jigéen mu ànd ak doomam ju jigéen ñëw ci kër gi maanaam doom ju jigéen jooju soo ànd ak maanaam buñ la mayee yaayam ba ba nga ànd ak moom ci wàllu sëy su boobaa doom ju jigéen jooju dalay araam doo doo ko mën a takk su fekkee ne nag may nañ la ko te àndagoog moom moom su yàlla dogalee ngeen tàggaloo bu fekkee ne doomam ju jigéen jooju bëgg nga ko mën ngeen a takkante waaye nag doom ji doomi jiite doomi jiitle daal suñu la soo ci wàllu sëy doom jooju moom da daal di araamante wa halaa'ilu abnaa'ikum allazina min aslaabikum ne na itam seen doom yu góor yi nga xam ne yéen leen jur maanaam yéen leen jur yéenay seen i baay ñoom itam seeni jabar maanaam mënatu leen a takk dañuy araam ci yéen wa an tañ moo baynal uxtayni nee na itam ñaani jigéen ñoo xam ne ñi ñoo bokk ndey ak baay wala ñu bokk baay rek wala ñu bokk yaay rek maanaam mënoo leen a boolendoo ci génn bu maanaam ñuy sëyandoo ak yow maanaam nga takk mag ak rak yoo xam ne ñoo bokk baay wala ñu bokk rek wala ñu bokk baay rek loolu itam dafay araam du mën a nekk boo takkee kii dootoo mën a takk mag ji wala rakk ji feeg yaa ngi ko yor su fekkee ne tàggoo ngeen nag wala mu kenn mu faatu man nga dem ca mag jëf nekkan foofu wala rakk ji nga takk ko waaye maanaam nga boole daal daal ñoom ñaar ñuy séyandoo ak yow loolu maanam mooy li nga xam ne di moom lay wax wa am taj moom baynal uxtayni wal muxsanaatu minan nisaay ak it soxna yi nga xam ne dañoo am ay borom kër ba pare ñooñu itam euh, day araam keneen dem di leen takk euh, ñu yor ñaari góor ñoo xam ne ñii ñoo leen takk seq leen yor leen kon daal euh, fukk ak ñeent ngi yoo xam ne yii man nañ koo teqantal bu baax a baax xool xam ne ñii moom dañoo ñëpp dañoo araam ci yow maanaam góor gu mën a doon euh, ñii mu lim nii ku ci ku mu ci mën a doon ku ne araam na ci yow kon war nañ koo xoolal bu baax di seet bu ñu tëkkab say nju jéem ko lijjanti leeral ko ba nga xam ne bii maanaam ki ñuy may maanaam soxna suñ koy may maanaam bokkul ci kenn ci fukk yi nga xam ne moom la alxuraan ji lim yàlla nañ yàlla doole defal tawfiix bu jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laaj bi ci topp Moodu Ngom moo ko fi rotal jëwriñu liggéey bi moom day laaj e, man nasiya niyata lil wudu baada xaslil wajhi maanaam day laaj ki xam ne kii day jàpp waaye dafa fàtte yéene ba sëlmu maanaam ba raxas xar kanamam nan lay def dañ ko naan man nasiya niyata lil wudu'i wajaba alayhi i'adatul wudu'i wa i'adatu salaati ida salla bi hadha al wudu jàpp koo xam ne kii da koy def fàtte yéene ja ba jàpp ba noppi soo jàppee ba noppi fàttaliku ne yow mii kat euh, yéenew laan maanaam dangay daal di baamuwaat njàpp maanaam da koy da ngay jàppaat maanaam da ngay daal di fas yéene daal di jàppaat su fekkee ne njàpp moom mu nga fàtte woon yéene ja itam euh, dem nga ba julli ca doog a fàttaliku ne man kat bi may jàpp yéenew man léegi dangay ngay baamuwaat njàpp ma baamuwaat julli googu nga xam ne gii Euh, moom nga ca julli ndax su boobaa njàpp moomu baaxut te bu njàpp mi baaxut julli ga du mën a baax kon benn tomb bu njëkk bi daal ci laaj bi mooy ki fàtte yéene ba jàpp ba pare su ko fatle ko day baamuwaat njàpp ma waaye tamit su ca ba pare doog a ne moom bi muy jàpp yéenewul day baamuwaat njàpp ma baamu julli ga yépp su ko defee wa in baa baada xaslil wajhi yan wi faraidal wudu wa yukmilul wudu nee na nag yéene boobu nga xam ne bii moom la fàtte su fekkee ni dafa dem ba raxas xar kanama maanaam sëlmu na dog a fàttale ko ne moom ko di yéene wutan ne kon maanaam day fas yéene jooju day fas yéene jooju rek maanaam day yéene daa di raxasaat xar kanamam continuer muttali am njàppam ndax la la jàll ne muy raxas loxo ya ba ko ay takkukaayu ga ak euh, galaxndiku ga ak sarandiku ga yépp yooyu ay sunna la yoo xam ne yii maanaam euh, yéene ji maanaam tàmbalewul foofu maanaam yéene njàpp dëgg-dëgg maanaam mu yéene farata ji maanaam mi ngi tàmbalee ci boo demee bay bëgg a raxas sa xar kanam bu ko defee soo demee bay waa boo raxasee sa loxo yooyu ba ci fi ñu takkam montar euh, galax ndiku sarax ndiku foofu la yéene ji fasoo kon bi mu ñëwee ba nga xam ne raxas na xar kanam bi kon foofu la bàyyi yéene ji kon day daal di fas yéene ja ca xol ba daal di raxasaat kër ka xaar kanamam daal di continuer mottali njàpp ma bu ko defee it dañu gis ne kon gis nga jàpp boo koy xool dañu mel ne dafa am ñaari yéene ndax yéene moom maanaam mooy nga jublu maanaam bëgg a def dara kon yow bi sa xel mu nekkee ci ne maanaam da ngaa da ngay jàpp rek da ngaa bëgg a jàpp boobu yéene fasu na waaye yéene jàpp moom du tàmbalee foofu yéene ji dëgg-dëgg maanaam ma ngay tàmbalee ca boo demee bay bëgg a raxas sa xar kanam boobu foofu monooy fi nga war a fas ne maanaam léegi maa ngi bëgg a def farataay njàpp yi waaye kon gis nga yéene ju jëkk jo yéene def jàpp rek lay doon nga xam ne day maasale njàpp mi yëpp waaye yéene jiñ ci teg muy farata mu doon ci ponk maanaam mooy booy bëgg a sëlm nga koy yéene doog a commencé sëlmu nag massage sa bopp massage say nopp daal di raxas say tànk ak ya ca aju su ko defee Euh, yéene boobu nga xam ne bii eh, da ko fàtte kon eh, ci biir njàpp mi te mooy bi mu demee ba war a yéene maanaam fi muy bëgg a raxasee xar kanamam raxas na xar kanamam ba pare doog a fàttaliku ne moom kat yéene jooju fàttaliku maanaam day dabaatal yéene jooju ndax ci biir njàpp mi la ko fàttaliku su ko defee da koy dabaatal daal di eh, raxas xar kanam ba daal di continuer mottali am jàppam waaye yële nga xam ne ni moo jàllan muy raxas loxo yak yooyu rek maanaam du ko baamuwaat day bàyyi yooyu mu jàll mu continuer ci fii nga xam ne fii moom la fàtte mu yéene ji mu dabaatal ko su ko defee daal di mottali am njàppam beneen laajam bi day ba tey day aju ci julli maanaam mu laajal moom mu dungom ki nga xam ne gi daa ñëw ci julli mbooloo gi fekk sàppe si nga xam ne si moo nekk ci julli gi maanaam fees léegi ne ne moom euh, day laaj bu fekkee ni eh, daa fekk sàppe si fees eh, bu mënta dugg ba julli ci ginnaaw moom dong maanaam eh, lan mooy atteb jullim googu dafa war a julli moom dong ci ginnaaw wala dafa war a fexey nu duggee ci biir sàppe sa foofu itam dañ koy wax ne day laaj mooy laaj mooy xokku man yu sàlli xalfa safi waxdahu koo xam ne daa ñëw fekk sàppe si mu daal di kàbbar ci ginnaaw sàppe si ànd moom dong nekk foofu di fa julli dañ ne bi duune usrin fa salaatuhu saxihatun ma karahatin maanaam ki ñëw fekk ñu sàppe bu xoolee sàppe si mu leer ko ne maanaam bu yëgloo maanaam ñëw bu yëgloo mën nañoo defaru ñoom waa sàppe sax may ko mu dugg ca biir sàppe sax maanaam defut loolu waaye daa ñëw rek daal di kabar ca ginnaaw sàppe sa ànd moom dong julli ne ne julli ga wér na waaye itam def na loo xam ne dañ koo sip maanaam dafay bëgg a wax ne def na bàkkaar bu ñëwee xool sàppe si mu leer ko ne kat sàppe si xaw naa yaraax yaraax goo xam ne gi bu yëgloo nit ñi mën nañoo defaru may ko mu dugg defut loola waaye daa ñëw rek daal di koy yombal daal di kabar ca ginnaaw sàppe sa daal di julli ne ne julli ga wér na waaye itam def na lu ñu sib waaye nag su duggee xool sàppe si sàppe si dëgër seere waanaam fees mu leer ko ne fii moom euh, mënuñoo defaroo defaru maanaam ba mu dugg ci biir sàppe si nag mu daal di kàbbar julli ci ginnaaw sàppe sa ne su boobaa maanaam julli ga wér na tey it defut lu ñu sib maanaam ndax loolu rek moo fa sës foofa la mën a jullee kon loolu mooy atteeb kii nga xam ne daa ànd moom dong di julli ci euh, ginnaaw sàppe maanaam am na nu muy demee maanaam bu fekkee ni dafa tegut maanaam da ko def ci dafa am ngant mooy mënta dugg ca biir sàppe sa su boobaa euh, julli ga wér na te it defut luñ sib su fekkee ni nag da ko dafa fekk ne sàppe sa kat bu jéem góor góorgóorlu dem jéem a dugg ca sàppe sa dina ca mën a dugg defu ko ngir yombal ga nga ne julli ga sax wér na moom itam waaye itam def na loo xam ne lii moom la ñu sib kon ki ñëw daal fekk ñu sàppe na fexey nu dugge ca biir sàppe sa su fekkee ni jàppandi na su dugg ga jàppandee defu ko nag eh, julli ga moom dina wér waaye da cay boole def na loo xam ne dañ koy sip ndax daa waroon a dugg ca sàppe sa su dugg ca sàppe ga mënta nekk nag bu boobaa julli ga it wér na waaye itam defut loo xam ne lii moom lañu ñu waaw kon loolu mooy ki nga xam ne atteeb ki nga xam ne ki daa ñëw fekk sàppe sa eh, ci biir jullit mbooloo ga yeneen laaj ci topp sëriñ Aliou njaay mbasu moo ko tàbbal ci eh, groupe bi di ko laaj euh, sëñ boobu sëñ mbasu sëñ Aliou Ndiaye mbasu ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko dalal di ko wax dalal ak jàmm waaye tamit di sant yàlla bu baax subhanahu wa taala ci tàbbeem googu nga xam ne bii tàbbi na ko ci liggéey bi nga xam ne bii moom lañu ñu séq loolu lu ñu kontaan la lu dalal suñu xel la waaye itam lu ñu gën a def ab ab soññ la ndax euh, liggéey bi nga xam ne bii dañ ne liggéeyal Serigne Touba tam moom la it moom lañ koy def ndax liggéey bi mooy alxuraan lañu fi jàng ak xasida di ko def addiya maam Xaadimu ak di fi tasaare xam-xam lépp loo xam ne lii Eh, lu ñu yaakaar ne xam-xam bu jullit bi mën a jariñoo la ci wàllu diineem ba mën a jaamu yàlla ñu di ko fi jàllale di ko leeral mbokk yi di ko leeral loolu ak di ci laayante biir ak di ci yeente ci lu baax di ci tegtalante ci lu baax loolu mooy liggéeyu Xaadimu Rasuul kon bu ko ay gone sosee ñu gis ne kat wax dëgg yàlla ay kilifa ñu ngi dugg ci biir ci fi ñu toll ci ay at ni ñu nu yilife ci wàll gu mën a doon gone ñu doon ci suñuy kilifa Euh, su boobaa loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax day gën a am yaakaar ci ne kat kon liggéey bi wax dëgg yàlla liggéey sëriñ Serigne Touba la ndax euh, jëmm ji nga xam ne ji xañ na mi ngi doog a tàbbi ci liggéey bi nii muy Aliou Ndiaye Mbassou mii euh, xam nañ ko bu baax a baax ci maanaam doon ngoo xam ne doon na ko ab jullit doon ab taalibe bëgg lu baax ndax dund nañoo moom. ay fan yoo xam ne yu xaw a limu la yu xaw a takku la eh, ak baax rek la nga xam ci moom ak ak doonab taalibe bëgg lu baax ndeysaan bari jàmm eh, yéeg ñëpp ama yéeg-yéeg lool ci doomu aadama yi kon eh, noonu lay sant bu baax a baax njaay di la ziyaare di la wax dalal ak jàmm ci liggéey bi xam ne gone yi nga nga dolli nga dolli ñu ñaan bu baax a baax ba gën ñoo jàppale di ñu defal di ñu xalaatal itam ndax yow xam nañ la bu baax sa sa xalaat maanaam lu ñu rafetlu la lu ñu xam la maanaam kon loolu nag ñu ci gën a jàppale rek ci lépp loo xam ni daal maanaam luy gën a jëmale liggéey bi kanam la ci wàllu xalaat ci wàllu jàppale gu mën a doon rek euh, ñoo ngi lay sant nga jàppaleñ ca loola ba liggéey bi ni ñu ko bëggee maanaam ñu gën koo mën a amee ñu kowe suñu njort kon Serigne Aliou Ndiaye ñu gën koo xamee ci mbasu dafa laaj e, lu jëm ci wàllu ñaanal ku fi jóge maanaam moom ñaanal ku faatu am néew ak ñaanam dafay laaj man yaqra'u faatixata wa adadan min al ixlaasi duaan lil mayti hal yuidul fatihata maa kulli ixlaasin dafay laaj waaw ne ki nga xam ne kii day ñaanal am néew maanaam ku faatu waaye day jàng fatiha ak ay lixlaas yu baree bari maanaam ab lim ci ay xul huwallaahu ahadun maanaam moo xam ñetti lix xul huwallaahu lay doon wala fukk ak benn lay doon wala ñeen fukk léegi ne ne léegi bu jàngee fatiha ba noppi lim boobu mu jàng ci lixlaas yi te lixlaas mooy xul huwallaahu ba mu jeex maanaam xul huwallaahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun ne ne su boobaa eh, fatiha jee da koy baamu ci eh, saabuy buy jàng xul huwallaahu gune da koy day jiital jàng fatiha ba noppi doo ko jàng lixlaas bu ba walla jenn fatiha ji dong doy na su ko defee eh, bala ñuy tontu laajam bu am solo boobu dañuy wax tuuti rek ci am solo boo xam ne gii ñaanal ki fi jóge da ko am solo ñu daal ne yàlla dafay wax subhanahu wa maanaam ci wàllu ñaan ne ud'uuni astajib lakum yàlla ci boppam moonu digal ñu ñaan kon ñaan faratale ci ñun ñun jullit ndax yàlla ne ne na ngeen ma ñaan ma di leen may kon ñaanal ab jullit ci dundam sax lu am solo la ngir yàlla faj ay aajoom waaye tam rawatina maanaam bu fekkee ni dafee jóge eh, ba eh, dem barsax foofu la gën a soxlaa ak ñaan te ñaan bu nuy xool xaadimu rasul wax ji mu ci wax ne fa kullu man nadara fal yad'u lana bi xayri ma yud'a li abadin ahsana idi duaa yanfau maytan fi lxubuur wa yanfau lxayya wa yujibu l ujur xaadimu rasul bi mbindee téeram bu rëy boobu bu sell boobu bu am solo ba muy masaalikul jinaan dafay sàkku ca biir téere ba moom xaadimu rasul ne nañ koy ñaanal daal di ne fa kullu man nasara képp koo xam ne ki xool na téere bi ma bind muy masaalikul jinaan fal yaddoo la naa nanu ñaanal maanaam nama ñaanal bi xayri maa yu doa ci lépp loo xam ne li aw yiw woo xam ne des na ko ñaanal li abdin ahsana ñeel jàmm boo xam ne bii dafa def lu rafet gis nga ci xaadimu rasul xam nga ne bu fekkee ni doyal na ci ay nit di ko ñaanal ak yooyu mbindeef di ko ñaanal kon du sàkku ñu di ko ñaanal kon ak ñaan du doy te gis nga bi mu bindee téere bi dane téere bi daal maa ngi neen képp koo xam ne kii xool nga ko maa ngi sàkku ci nga ñaanal ma wépp yi woo xam ne dañ koy ñaanal ñeel jàmm boo xam ne bii dafa rafetal daa di ne isid doa yan faaw maytan fil ko buur na nag li tax may sàkku loolu ne ne euh, ñaan day jariñ ki nga xam ne ki dafa faatu bañ dugal ko ci biir bàmmeel wayan fawal xay te it ñaan dina jëriñ ki nga xam ne kii faatoogul mi ngi nekk di dund fii ci kaw suuf yu jibul uyur te nee na ñaan itam day waral yow mi ñaan danga nga am ak pay waaye itam ka ngay ñaanal yàlla da ko cay jotalee mën a nungu ñaan googu maanaam fajal ko ci ay aajoom bu ko defee it ci njëriñal eh, ñaanal am néew wala bokk at teeb ñaanal am néew dañ ne adduaa lil mayti sunnatun mutabaatun lima warada an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ida faraga min dafnil mayti waqafa alayhi wa qaala istaghfiru li akhikum wa lahu tathbita fa innahu al aana yusalu ba tey ki dafa faatu ba dem barsaax sunna la sunna su sax soo xam ne si dañ koy topp ñu jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga ci kon ñeneen ñi nga xam ne xañ na àgg nañ ci foo xam ne naan euh, doomu aadama moom dara mënu koo jariñ lu dul ay jëfam waaw doomu aadama ay jëfam rek koy jariñ ndax fi nga xam ne kii dafay jóge ñu di ko ñaanal maanaam ay jëfam mooy tax ñu di ko ñaanal su ko jëfutan deesu ko ñaanal kon wax jooju moom daanaka bu ñu xool wax ju yàqu la rek ak ñàkk a dégg waaye doomu aadama moom ay jëfuma koy jëriñ ak ñaan ca la bokk ndax doomu aadama bu ñu koy ñaanal kat fekk ne moom dafa fekk koo xam ne doon na jëf xam ne lii moo sabab ñu di ko ñaanal kon ca jëf ya la bokk ay it la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ne euh, saa bu demaa ba denc nit ba pare maanaam nit ki bu faatoo ba ñu suul ko euh, yonente bi day daay taxaw euh, tiim Euh, jëmm jooju ñu suul daal di ne maanaam ñi mu àndal mu jullit ñi mu àndal ne leen na ngeen sàkkul seen mbokk mii ak njëggal maanaam na ngeen ñaanal seen mbokk mii yàlla jéggal ko te it na ngeen ko ñaanal suñu koy laaj maanaam yàlla saxal aw làmmiñam ba lañ koy laaj maanaam mu mën caa tontu lu jub maanaam istaxfiru li axiikum wasalu lahul at tathbita ne ne fa innahu al aana yusalu ndax ne ne léegi ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy laaj nga kon yonente bi noonu la doon def danay wax ne maa ngi sàkku ci yéen ngeen jéggulul seen bokk maanaam ngeen ñaanal ko yàlla jéggal ko te it na ngeen ko ñaanal su ñu koy laaj yàlla jubal aw làmmiñam ba liñ koy laaj euh, mu mën caa tontu lam ca war a tontu ngeen mu mën a mucc ndaxte ne fii ñu ko suul nii fi mu nii léegi ñu ngi koy euh, laaj waye juusu addu'a u sirran wa jëxëran nee na ñaan googu ñuy ñaanal nag koo xam ne kii euh, dafee jógee nekk bar sax mën nañ koo yàllu bu la neexee boo ko ñaanal nga wax ko ndànk wa jëxëran mën nañ koo wax ca kaw maanaam di ko biral furaada wa jamaatin ñaan googu it mën nañ ko def kenn ku ne def ko waaye mën nañu mbooloo itam di ko def ndax ne ne xaala sallallahu alayhi wa sallam isa ma tabnu aadaman xataa amaluhu illa min thalath sadaqatin jaariyatin aw ilmin bi bihi aw waladin saalihin yaduu lahu yonente bi ne ne nit ki bu faatoo jëfam yëpp day daal di taxaw deetu su ko deetu ko bindal dara maanaam ba mu des ne ne ñett yi rek doomu aadama yi desee eh, su ko amee maanaam ñu di ko ci bindal ab yool muy sadaxatin jaariyatin bu fekk ne dafay defal loo xam ne lii doomu aadama yi ñu ngi koy jariñoo njariñ loolu continuer di woy loole yool ba mu ca doon am day continuer di am feek loolaa ngay am aw ilmin yun tafaaw bihi wala mu doon boroom xam-xam boo xam ne bii euh, doon nañ jariñu ci xam-xamam bi jógee tey euh, bi mu fi nekkee tey bi mu fi jógee itam xam-xamam boobee ñu nga cay jariñu loole yool ba da koy fekki aw waladin saalihin yadoo lahu wala mu bàyyi fi doom yoo xam ne yii ju baax la joo xam ne ji maanam moo ngi koy farleku di ko ñaanal kon ngir ñu tontu laajab boobu bu am solo boobu rek ci wàllu ñaanal euh, am néew lii lenn la ci lu néew la ci ay njariñ yoo xam ne yii maanaam ñaanal euh, ku fi jóge da koo am solo maanaam mu di ko jariñ bu baax a baax te it ñoo ngi ci mbindam xaadimu rasul mu ne ña nga xam ne ñi dañoo nekk barsaax day maanaam suba gu ñu xëyee maanaam dinañu woote junni yoon ku ci nekk ci ñoom di nga woote junni yoon di woote waa àdduna yi ne woote googu nag maanaam doomu aadama yi ak jinne yi dong ñoo ko du dégg waaye yeneen bindeef yi ci des yépp dañu dégg woote yooyu nga xam ne yi moom la ñu ña nekk barsaax di woote te la ñuy woote mooy bëgg ku leen dimal rek maanaam ci sarax leen ak ñaan wala nga saraxel leen euh, wala nga julli leen ay raakaa yoo xam ne danga leen di yéene yool ba su ko defee kon ñoom jéem dañuy woote ci woote yu tol noonu yàlla def secret ñun doomu aadama yi duñ ko dégg jinne yi duñ ko dégg euh, waaye ñu gis fu ñu tegtaloo ne moom ñu ngay woote ngir bëgg ñu di leen ñaanal kon day tegtale ne kan di leen ñaanal kat lu ama am solo la su ko defee lii mu wax ne ndax ngir dina aajo nag booy ñaanal ku faatu kooku nga jàng faatiha ak lixlaas ya ngay jàng ndax dina jar maanaam lixlaas bu ne nga boole ko faatiha loolu lay tontu mooy dañ ko ne laa yaxtaaju zalika maanaam du aajoo eh, ngay jàng faatiha ak lixlaas boo jàngi dam boole ca faatiha boo jàngee faatiha benn yoon rek lim ba nga xam ne bii moom ngay jàng ci ay xul huwallaahu danga nga koy jàng moom dong waaye doo ca boole faatiha waaye nanga nga ba xul eh, huwallaahu booy jàng maanaam nga jiital ca bismillahi rahmaani rahim loolu daal mooy li nga xam ne mooy charte yi nga xam ne moom lañu wax ci kiy ñaanal ki faatu te day jàng faatiha ak ab lim ci ay ixlaas ci ay xul du aajoo xul huwallaahu bu ne mu di ko booleeg faatiha waaye xul huwallaahu bu ne maanaam na ko booleeg bismillaahi rahmaani rahiim doga continuer ba ca des waaye jenn faatiha ji dong doy na ñu booleeku limab xul yooyu nga xam ne yii moom la jàng te di ca boole bu ci nekk bismillahi rahmani rahim beneen laajam bi ci topp moom Aliyu Njaay Mbasu ba tey dafay laaj man yatanafalu wa yaqra'u alfatihata wa iddata ixlaasin hal yuidul basmalata li kulli dafay laaj ne koo xam ne ni nag day naafila naafila koo xam ne gii ay rakkaa koy def moo xam ñaari rakkaa la wala ñeenti rakkaa la wala juróom benn rakka wala nu mu mën a toll rek waaye moom nam koy naafila mooy day jàng faatiha waaye bu jàngee faatiha itam dajay teg ay ixlaas maanaam ab lim ci ay xul huwallaahu muy laaj nag wax léegi su jàngee faatiha ba pare xul huwallaahu yooyu muy jàng ba tey xul huwallaahu bu nekk da koy booleek bismillaahi rahmaani rahim wala day wax xul huwallaahu rek waaw foofu dañ ko naan maanaam kiy naafila naafila yoo xam ne yii rakkaaya muy julli da cay jàng faatiha ab lim ci ay xul huwallaahu xul huwallaahu yooyu maanaam benn bu ci nekk da koy ubbee bismillaahi rahmaani rahim ba xul huwallaahu ya jeex su ko defee noonu la koy naafila ba rakkaaya muy julli yépp mat xul huwallaahu bu ci nekk maanaam da cay jiital bismillaahi rahmaani rahim doog a jàll ci beneen xul huwallaahu ba kon moo ngi ñaan yàlla doolu ñu defal tawfiix bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dellu di ziare ñëpp di leen ndokkeel di ñaan yàlla gën ñoo jàppale ci liggéey bi doolu ñoo taxawu faj ñu suñuy aaju zahiran baatinan bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu